tijaani sama waay la jamiñal jaara busu wala man sebi jaara jurujub ci biir oto tiitoo xëccoo mais sénégalais léegi man je comprends pas nit nooy faatee nit si façon faat yu mel noonu ñu dégg noonu lañ leen faatee mooy jàkkaarlook bu doon sax xar sax am na noo koy faatee doo nelaw waxumalaat ñaari doomu aadama ñoo xam ne ñoom ñaar ñëpp ay ndaw lañu c'est des jeunes amaguñu soxna avenir nekkoon seen kanam nga mën a jàkkaarloog ñoom jël paat ka dabaj leen dabaj leen ba ñu génn àdduna nga mën a sol sa yére yëg oto ne yaa ngi dem màggali moo tax yàlla gi tey xaaratul ba yowmal xiyaat waaw waaw day leeral parce que tey jëf ji ñu jëf mënoon na jafe pour ñu xam ñan ñoo ko def mais deful vingt quatre heures ñu dégg gendarmerie bu Touba jàpp na ki nga xam ne mooy Lamine Diawo di alias Modou nan la gendarmerie def ba jàpp ko mooy alias Modou Lo bi mu faatee Aziz Dabala ak Waly ba pare dafa ñëw wax ko nijaayam ne man de def naa kawteef def naa musiba boom naa boom naa yàlla moo ko waxloo parce que doomu aadama mënoo jëf-jëf yu ñaaw yi ba pare nga bëgg see génne noonu mënut nekk moo tax kii di Lamine Diawo alias Modou Lo ba mu jëfee jëfee muy ñaaw yi ba pare dawul nëbbatuwul dafa ñëw si nijaayam ne ko nijaayam nijaay ne ko naam mu ne ko faat naa Bakande kan nga faat faat naa Aziz Dabala faat naa Waali nijaay bi tamit def yëfu nit ku responsable parce que bu ko defutoon rek heure bi caabi mën na ko féetee ginnaaw parce que dañu koy jàppee complice mais heureusement nijaay bi moo dem si gendarme yi nekk Touba daa di leen signaler man de sama jarbaat maak moom ñoo ànd ñëw Touba mais dafa boom ñaari doomu aadama gendarme yi ne ko ah mu ne ko waaw gendarme yi ànd ak ñoom ñu def le tout ba teg loxo ki nga xam ne mooy lamin Diawo alias Modou Lo si noonu la gendarmerie bi le lendemain daal di koy yóbbu ndakaaru njaay jal Diop rawatina foofu ca dig jamono jooju ba ñuy jël ki nga xamante ni mooy lamin jaaw alias Modou Lo di ko andi dig boobu dig commencé na enquête bi parce que enquête bi ñu ko njëkk commencé mooy police Pikine police Pikine comme mbir mi pikin la xewe seen zone la ñoom la ñu woo ñu commencé enquête bi mais comme mbir mi dafa jéggi dayoo ñu ne lii nañu ko jébbal waa DIC dikk nga xam ne ñoo yor lépp loo xamante ni affaire criminelle la mooy division des investigations criminelles wuyoon na turam heureusement jàmbaar yooyu nekk DIC nag ñu jaajëfalaat leen bu baax a baax a baax a baax ndax mbir mi yàggul ñu commencé jàpp ñan ñoo def jëf ju ñaaw jooju si noonu ba ñuy jël ki nga xam ne mooy alias Modou Lo di ko jëlee Touba di andi dik jamono jooju ñun ngi ñuy yëgal dik ndeke tegoon na loxo ñaari doomu aadama parce que bu leen fàtte nag enquête ah sunu police yi xarañ nañ ci de te amoon na police scientifique police scientifique mooy ñi nga xam ne bu jëyi amee wala musiba am dinañu ñëw jël ay produits def ko si buntu néeg beeg ci lal yi xool fu loxo doomu aadama teg woon rek ñu mën a xam à partir des empreintes kan moo def lii en attendant si noonu la ñu commencé enquête bi enquête bi di dem si lanu ñu ki nga xam ne mooy yaayu Aziz Dabala pour laaj ko si ku nekkoon sa doom ak kañ nga ko gëj a dégg kañ nga ko gëj a gis ñu bind si noonu di convoqué frère Aziz Dabala ku nekkoon sa frère kañ nga ko gëj a gis kañ nga ko dégg mu bind si noonu lañu ñu convoqué it le frère de Wali mooy xale bi génn àdduna ak Aziz Dabala moom it ñu déglu ko si noonu it lañu ñu ki nga xam ne lañu jàppoon ni mooy jigéenu Aziz Dabala di Nabou Leye mhm. comme moo doon ànd ak Aziz Dabala di doomu ndeyam si lu nu foogoon faw ñu déglu ko bañ ko dégloo ba noppi dañ ko bàyyi mu dem na ko jërëjëf comme nu ñu bàyyee yaayu Aziz Dabala comme nu ñu bàyyee frère Aziz Dabala comme nu ñu bàyyee frère Waly Nabou Leye it noonu lañ ko bàyyee moom dof bu mu doon yaakaar ni bambam maase na daa di commencé yëkkati téléphone am rek di ratatatat di wax ñan la doon waxal mooy ñii boom Aziz Dabala ah Nabou Leye def nga lu benn jigéen mësul def biir Sénégal c'est la première fois et l'histoire retiendra it mm-hmm. l'histoire retiendra moo tax it ñu woowaat ko une deuxième fois di ko dégluwaat bàyyiwaat ko mu ñibbi dof bu mu doon it mu continuer di communiquer rek si noonu la dig di def liggéeyam di gis Nabou Leye bii comme am nañu numéro téléphone am ñan lay communiquer ñu ngi koy def suu écoute waaw kay ñu ngi koy def sous écoute pour xam xale bu jigéen bii di doomu ndey Aziz Dabala ñu waroon ko def sous écoute mu waroon too di communiquer ak ay nit naan siggi leen di gaale Aziz sama Aziz dem na ah Nabou Leye ndeke jamono jooju mu ngi wax ak ñii boom naan li ngeen def ëpp na du li lañ leen santoon du lii ngeen waroon def ah ñu ne ko soxna si nag nañ ko woowaat mu ñëw ci diggante boobu fekk jàppaat nañu ginnaaw bi ñu tegee loxo ñaari nit ak ki nga xam ne jàpp nañ ne moom moo boom di alias Modou Lo ñu doon ñett nit si noonu it la ñu woowaat Nabou Leye di ko déglu di ko déglu ba wi ba une heure du ñu ne Nabou Leye dañ lay def garde à vue ah ñu ne nag caaf xam na Nabou doomu ndeyu Aziz Dabala ñëpp waroon ñëw di ko jox njaal mi ñëpp naroon ñëw di ko ne siggil ndigaale lu nu bokk ba tey sax Aziz Dabala bu doon bàyyi woon na ay bien di neñ ne Nabou Leye de war na donn si bien yi ndax jege bu mu jege woon Aziz Dabala ndeke Nabou Leye boobu de garda fii nañ ko si la jàppale yeneen i juróomi nit ak Aziz excusez-moi ak Naboulaye muy juróom benn nit bañ ko defee garde à vue nag ku ne di wax parce que duñ ko yaakaar parce que duñ ko foog parce que nit ñi ñu ngi xooli ji vidéo yi kan mooy Naboulaye kan mooy Aziz Dabala ñu gis Aziz Dabala fu mu waxee mu ne Naboulaye sama doom ji nabule yow li ma lay ñaanal rek mooy gudd fan ak wér nabule yow li ma lay ñaanal rek yàlla sunu borom bàyyi la fi non kon nabule yi lu war a mën a rey Aziz Dabala naru si boq ndeke nag nee nañu xarit bu doon rek jege mooy taxa doon xarit ndox du toggu jën bu doon jege mooy taxa doon xarit ndox du togg jën ndeke yoo jigéen soppal te bul wóolu mu ngi doogal leer ci bopp nit ñi si lañu toog dégg ne def nanu garde à vue Nabou Leye ñenn ji dinaa Nabou Leye boo gisee ñu def ko garde à vue c'est parce que dañu ko bëgg sécuriser c'est parce que Nabou moo wax police yi que kii ak kii ak kii ñoo jëf-jëf ju ñaaw ji léegi balaa ñu di am seeni ay xarit yu ñëw faagaagal Nabou Leye Nabou Leye police daf koy sécuriser ma ne leen déedéet police bu doon sécuriser Nabou Leye du ko def garde à vue parce que garde à vue mooy ñu nangu sa téléphone garde à vue mooy kenn amatul droit communiquer ak yow lu dul police joxe ndigal nit ki ñëw sëgg di wax ak yow garde à vue mooy dañ lay dugal ci benn cellule boo xamante ni yow amatoo liberté pour la moment garde à vue mooy foo xam ne di fa fanaan doo tëdd ci matelas doo tëdd ci lal garde à vue mooy foo xamante ne bu ñu la fa dugalee sa téléphone ci boppam amatoo si droit te yàqu ko moomal sa bopp donc loolu pour ñu sécuriser la kon kenn du la garde à vue ah coow li di dem coow li di dem coow li di dem ba ñu jékki-jékki ne jàpp nañu juróomi nit ak Nabou lay muy juróom benn nit ñu nar leen jébbal nag procureur de la république si la ñu toog yóbbu leen tribunal bu Pikine yéen a ngi koy fàttaleku bañ leen yóbboo si procureur de la république procureur ginnaaw enquête bi police def muy waa DIC ndax procureur moo leen sant enquête boobu DIC ba mu defee enquête am ba noppi day woo procureur ne li ma santoon pour ma ubbi enquête si boomum Aziz Dabala ak Waly pare naa sama enquête kii ak kii ak kii daal la ñuy jàpp ne que ñoo def ñaaw def bii procureur yi dañ koy jox dossier yooyu yëpp mu téye léegi lañu leen di déférer au parquet mooy li leen doon wax boo nekkee à la euh, brigade wala ci commissariat ba loolu garde à vue la mais buñ la defeeree mooy ñu ngi lay jëlee ci commissariat ba wala di la jëlee ci brigade gendarmerie ba di la jébbal procureur loolu mooy défèrement ñu defeere leen ci kanamu procureur procureur déglu ñenn ñi ci jour boobu jeexalul mu def retour de parquet retour de parquet mooy yóbbuwu leen kaso mais dañuy delluwaat police fanaani foofu ba la lendemain ñu ñëwaat procureur continuer enquête am si noonu procureur déglu ñu siy déglu pareegul mu def leen retour de la le lendemain ñu ñëwaat procureur déglu daal di leen def mandat de dépôt boobu mooy nag tey kaso la ñuy fanaan yi mooy lu sénégalais yëpp doon fàttaliku bés boobu Nabou Leye daal di dem camp yeneen juróomi nit yi daal di dem rëbës si la ñu jékki-jékki dégg ne ah ndeke nag mbir mi nabulay nekkatu si slip caaya la si parce que ñii doon wax Nabou Leye dañ ko garde à vue pour sécuriser ko bu ñu demee ba jël Nabou Leye yóbbu ko kaso loolu mooy de ah procureur dafa gis si enquête u dig que Nabou laale na si parce que bu si laalewuloon moom si boppam bu ñëwee procureur mun na ko ñibbil sa kër mbala sax sa enquête ba sa dig dig mënoon na ko ne ñibbil sa kër dañ la téewoon pour dans le cadre da l' mais déglu nañ la déglu ñi sekkoon mbir mi yow na bu lay xam ne doo si Papa Ndiaye mën nga ñibbi mais demeewul noonu de. di daandi sama waay da jàmm ñal jaara busub wala sa bi jaara